ci noonu nag la ñëwee romb ko dugg ci dëkk bi dëkk yu bari nag dem nañ fa ca Fatick eh, noonu la ca eh, Kaolack noonu la ca Njaareem noonu la kon Proval daal lu yaatu la ñuy sant it monsieur ministre de l' agriculture et de l' rural professeur Moussa balde ak monsieur Younoussa Mbalo mi nga xam ne moom la ñu dénk Proval projet Proval CV projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur mooy lan projet boo xam ne euh, euh, valoriser ndox d'abord Lepp ci ndox lay jógee alors euh, donc ci bir ndox bobu nak fépp fi ma fi nga xamné gis nañ fa soit ay teen wala ay mini forage wala ay barrage bo xamné day téye ndox ñu jéma xol ñu ñuy fexé ba valoriser ndox bobu nous ci ci li ñuy euh, développement des chaînes de valeur euh, ak tamit xol ni ñuy ba créer ay emploi ba di activités yi nga xamné entrepreneuriat rural projet nak euh donc gouvernement du Sénégal moko initié. initié euh, Banque africaine de développement gungé ci gungé ko projet bobu ak yeneen bailleur de fonds comme ay OPEC wala AGTF projet bi nag total à peu près 80 milliards la waaye ci juróom ñetti région lay lañ koy dérouler donc euh, région ñetti région yi nekk ci sud maanaam ci Casamance ñoom ñëpp bokk nañ ci waaye nag am na ay juróomi région yoo xam ne ci bassin arachidier la ñu nekk projet bi depuis bi mu démarré nag mat na ñaari at ak genn wàll donc euh, mu ngi liggéey euh, te ni ma ko waxee daal ci ay composantes ay composantes yoo xam ne yu am solo la composantes yooyu comme ni ñu ko tuddee projet bi day réaliser ay infrastructure hydro-agricole infrastructure hydro-agricole tudd naa ko sànq lépp li nga xam ne ay barrage les lekk li ma xam ne ay euh, ay forage la ak leneen ak leneen ak leneen donc loolu mooy infrastructure aménagement de terres agricoles. Dagn koy réaliser mais tamit dagn koy aménager aménager ci biir Benen composante bi moy développement des chaînes de valeur xam nga les chaînes de valeur lu yaatu la filière bo gis dafa am ay ay maillon donc projet bi bo par exemple ceeb ceeb bokoy koy do doo koy euh jiw bi ci façon ñi koy bayé les techniques culturales ñu ngi ci ensuite boko bayé tamit ni koy góobee benen mayon la euh ngi koy transformer benen mayon la ñi koy jaayé benen mayon la donc projet bi day xol ben culture ben filière xol ban yan maillon yan maillon yoo xam yu xawa a yi wala càllale yi voilà xool yan maillon yi gëna faible ñu agir ci doole ko donc c'est le développement des chaînes de valeur euh, donc c'est culture maraîchère. projet la promotion de l'entrepreneuriat rural. entrepreneuriat rural c'est am solo la lu parce que euh, ba de toutes les façons que agriculture est créer emploi mais l'emploi emploi créé emploi durable emploi yo xam dina amal njëriñ ñi koy ñi ko ñi ko ñi koy utiliser donc surtout emploi jeunes jeune, jeunes tay tay tay jeune boo gis mu am fi mu dëkk ben activité bo xam da koy rapporter xaliss bo xam bu ñëwoon Dakar boko cumuler yépp xeyna du ko am euh, ci at bi mais day tok day tok donc emploi durable yoyu

en tout cas amna naa jafe pour am ndox wala da lay euh sama système d'irrigation manam ni may béyee dal bu fekkoon ne mënoon am benen système d'irrigation bo xamné day gëna saxana ndox mi mais day gëna a tamit yokk rendement bi et cetera et cetera projet bi day ñew. Xol d'abord étudier sa situation Xol réellement est-ce que d'abord yow engagé nga ci ci ci ci ci ki bobu ci ci secteur bobu. bu fekkee ne woone nga ay disposition yo vraiment engagé nga projet bi day yow la euh, clôture d'abord clôturer le ce qui. projet bi day ñew tamit la ci bi par exemple mu réaliser la mini forage mini forage yi réaliser réaliser tam problème boy am le système d'exor donc ñun ci projet bi est solaire la donc vous donc dañ koy forage bi dañ koy équiper en solaire bu lolu paré nak dañuy ñëw tamit xol ban système d'irrigation nga mëna euh, am pour que vraiment sa production gëna a baax donc moy euh, la réalisation de d'infrastructure sous forme de subvention koku ben li fi ne li nane bay danaka bari bari wutoon li fi nek ni danaka tier bi la naan béy avant Proval hmm. mais ak bi mu ñëwee légui wax dëgg yàlla defal ñu forage ak yëpp wax dëgg yàlla affaire bi yokku na daal ba instant bi ñeen ñuy jàppale sax si liggéey bi ndax dafa dem bu mujj gi dafa dafa métti si dafa bari si ñun te bu njëkk buñ commencé daanaka du mat waxtu sax nga jaay dem toog liggéey bi daa daaw si yàgg du mat waxtu nga dem toog léegi nag mën ngaa xëy lu mat ñaari waxtu yi tànqale doo doo pare kon daanaka yokkute moom am na foofu am na foofu bu baax moom mais daal liñ si gën a moom moom mooy grillage bi ñu defal ak forage bi mooy forage bi ngeen gis ne mi ngi ne mhm. basin yi ñoom ñoo ñu ko may. gisal clôture bi ni mu mel nii. zone bi ñu nekk Njaareem moom doon waat waar doon na waar goo xam ne daanaka lu fi mbay mi moom gisuma ko fi. lu fi tane mbay mi gisuma ko fi ndax man mii lay wax ay jamono bawoon naa ko fa dem si marché bi. mais ay bor ma fa jëlee waat ma si tool bi fi laa ko fayewaat kon daanaka bu ma tool yi moom tane na moom. ah gisuma man man boo ko ma keneen waaye man moom gisuma di ko tane si Njaareem. xam naa ne moom ñu ngi sant Proval bu baax daal di ko gën gërëm wax dëgg yàlla mënuñ leen a fay

mu andil ñu projet bi ñuy wax Proval et Proval bi mu ñëwee moom moo ñëw rencontré ñu et proposé ñu ay solution yi nga xam ne yi ñun suñuy gàllankoor loolu moo fa nekkoon donc ku la andil ndox génneel la ndox ma aaral la tool ba mën naa wax ne euh, euh, euh, sa soxla su nekkoon ñaar fukk fukk yaak juróom-ñeent réglé na ko li des mooy nga jënd jiw jënd engrais jënd produit pour nga mën a liggéey te loolu nag mën naa wax ne xam nga su ma la ko doon xaymaa rek mooy tey nga ma ma andi fukki junni hmm. yow li nga ma andil mën naa cee génnee euh, euh, deux millions trois millions mën naa wax ne yow da nga ma régler sama problème yëpp parce que jënd jiw jënd kii man cinquante mille su ma ko soo ma ko joxoon rek dans un an dinaa la génneel deux millions trois millions donc loola te loola ci mbéy rek la mën a am gis nga maraîchage maam mbéy mbéyu dugub ak gerte ci foofu rek nga mën am bénéfice yi nga xam ne yi macha allah ko am fenn donc importance mbéy suñ ko xamoon réew mi yëpp dinaa la wax ne soixante dix pour cent bi dinañ jëm ci mbéy pour que autosuffisance alimentaire boobu bi ñuy wax dañ koy réaliser une bonne politique agricole su nekkoon rek financé nañu jeunes yi ñu mën leen financer ñu nangu ñoom itam ñu dem liggéey te respecter les techniques culturelles mais dama la ne wallahi le Sénégal dina développer ni ñu bëgg donc mais malheureusement le rek mooy ket et projet bi nag ñëw na ci loolu pour régler ces problèmes là mais xëy na da ngeen ñëw ci début bi mais fi mu nekk su ngeen ñëwoon fii dans deux ans hmm. di ngeen xam ne fii li Proval def hmm. xamu ko sax mënuñ ko mënuñ ko xayma mm-hmm. parce que loolu moo manqué woon Diourbel Diourbel ñun c'est une zone maraîchère c'est dañuy wax ne bassin arachidier ak yooyu mais ah, bassin arachidier la mais d'accord mais c'est un bassin euh, maraîcher c'est sûr kooku li ñuy am li ñuy am potentiel bi fii renforcement de capacité la ñuy defal mais de formation ñun kenn duñu former dañuy renforcer les capacités parce que y a les nouvelles techniques ay aspersion ak ay goutte à goutte ak yooyu ñëw na te ñun dañ xamoon tuur loolu lañ xamoon mais léegi loolu su ñëwee xëy na fokk ngeen renforcer capacité yi pour que ñu mën a développer ñu adapté wu à à ces nouvelles techniques pour que ñu mën a dem. man sama tool damay ñëw taal samay bassin mu remplir ma dem. Mhm. ma dem réunion à la gouvernance ma dem réunion à la préfecture fekk na tool bi ñu ngi koy arrosé donc loolu technique yooyu su nekkee yokk nañ ko ci dans le dans. le maraîchage à Diourbel. dañ ko sécuriser ndax dañ ko ñàkk. waaw dañ koo ñàkk damay tëdd nelaw sa aujourd'hui je door sans problème du ma du ma xalaat ne bay ngi sama tool mbaa kii léegi loolu amatuma xalaatam donc loolu su nekkee am nga ko mais lu la lu la dese nit ki nag fokk mu ñaq. Mhm. ñaq jëriñu lii li ñu Proval defal képp ku ko am bénéfice yow. tu dois réussir soo réussirul da danga xam ne yow bugguloo liggéey. donc les jeunes là man loolu laa di wo pour ñu ñew ñu xamné ya y a rien de tel aujourd'hui ni mu méttee woon té bu njëkk ci suñu ci ñun suñuy metté tul nonu maraîchage maraîchage tay da ngay bëss bouton rek mu arroser la donc lool c'est ce qui est sûr et certain que suñ ko mëne def dina baax trop parce que am nga ndox am nga euh, clôturer nañ la am nga solaire amul benn dépense booy dépense di pour génne ndox mi loolu macha allah. Euh, Bamba Fall waaw Proval ñëw na bi ñu ñëwee li ñu njëkk defal mooy dañ ñu sàmmal parce que fii dafa bëri ay jur gu ndaw bi ñu ñëwee ñu defal ñu grillage boo gisee moom moo wër tool bi depuis bi grillage yu jugee fi ne am nañ problème léegi bëy yi dootuñu dugg nag yi parce que dafa am fi ay sàmm tamit coot gi daal bi ñu paree ci loolu tamit comme ñun dañu amoon problème ndox boo xoolee benn teen laa fi amoon teen bi presque mënutoon arrosé ba mënuñu bay ci suuf si dañ daan def teen bi bu ñu arrosé tey garab yi benn fan tëbal beneen fan ci beneen fan la ñuy arrosé waat beneen bi mais Proval bi mu ñëwee nag ñoom dañu ñëw défal ñu fi forage défal nañu forage bo xamné fi né depuis buñ ko fi défé mom mo féete ne ci kaw ci boori néeg yi ñoo ñu défal tamit panneau solaire yi wa ñu défal ñu aussi panneau solaire euh biñu défalé panneau solaire yi euh dafa fekk man bu njëkk sama téne euh dama daan def gasoil di fay gasoil toujours dama daan dem jënd gasoil ñëw def ci pompe yi arroser donc dépense yi bëri lool quoi mais ñom depuis bi ñu ñëwee man fayatuma ndox. fayatuma gasoil aussi léegi ñoom dañu monteel ay panneaux solaires yoo xam ne da ngay dox xale bu ndaw sax dama koy jël rek yónni mu ñëw def contact ndox mi ñëw waaw léegi mën naa sax su ma neexee xëy taal ndox mi booy nekk fi di arrosé man ma dem lijjanti di leen lu mel na ay engrais yu demee noonu ci biir yoo xam ne ci tool bi la jëm amatul ruur ndox mi doy na wax dëgg yàlla parce que fi mu ne instant yi arrosé nañ ba pare te am nañ quatre bassins yu quatre mètres cubes yoo xam ne yëpp fees na tool bi am na ñu ngi fiy def ñu ngi fiy def salade ñu ngi fiy def kanja ñu ngi def tamaate def nañ fi aussi soble fi nii sax da ngeen ñëw fekk ñu récolter parce que récolter nañu nawet fi nii ba nawet bi ñor na instant yi recolte nañu ci jamonoy koor gi ko tool bi lépp kii la woon quoi salade mais jaay nañ salade bi ba jeex na fi ne ñu ngi def ay bisaab ñu ngi def tamaate moom laa àndoon léegi ak yen mooy tamaate farce bi ñu aussi ñu ngi koy récolter. man sax sama bopp la ma doon liggéey dama ko bàyyi far yam ci tool yi. waaw parce que man maa ngi doon liggéey aussi maa ngi Dakar au niveau de la SODIDA fa laa doon zone industrielle bi ma ñibbisee maa ngi nekkoon ci bureau notaire bi nek à Diourbel mais dal bi ma ba ñam suuf si nii hmm. Proval fekk si ma defe naa daal damay euh, ndox tol bi sama dal wala ben tol lay bëgg ñu yokal ma dal fi mu ne man mom ñu yokal ma lay ñaan fi ah, mu ne parce que tol yi mom fi mu ne alhamdulilah bu ñu lë amoon ñeneen yu mel Proval hmm. wax deug yalla mën nañ tëdd suñu kër dina law dal parce que à chaque fois bu ñu fi ñëwee dinañu indil ndox yenn saa ñu jaar fi sax jox ñu sëri ca may ñu ay jiw te di ñu promettre aussi yeneen quoi waaw wax dëgg yàlla Proval moom bi mu fekkee ba léegi ñun gis nañ ci suñu bopp. 2000 laa nekk ci tool yi ba tey te ci laa yor sama kër ci laay faj samay soxla aussi en même temps wax dëgg maa ngi ciy sant yàlla bu baax daal. comme jamono yi ñu toll wax dëgg yàlla waa Proval ñu ngi ciy def seen rôle bu am solo ci wàllum ndox mi man tool laa jàpp ne moo nar a defar sama avenir kon looloo tax ma. Tan bayum tol te aussi en même temps mbéy dama cee gis loo xam ne bariwul ci liggéey lum ne ci yum ne lim atan bayi, bariwul liggéey yu ko atan man mii def naa clandestin def naa clandestin ñaari yoon ci yi eh, yoon bi Maroc laa yem fa eh, tante na ñaari yoon ci géej gi mënumaa jàll ci laa ñib si mooy bi eh, sama premier avant voyage 2007 la waaw kon maanaam euh, li may wax foofu rek mooy ñàkk a xam la mais bu ñu xamoon dëgg-dëgg li nekk ci ci tool yi maanaam waxuma laa ndaw yi sax waaye état bu Sénégal ñooy gën a jël seen en charge ngir gën a financé ci wàllu wàllu mbéy mi parce que mënoon naa dooleel Sénégal trop samay soxla yëpp mën naa ne ci ci tool yi laa ko yor parce que liggéeyu ma leneen ñu ko liggéeyu ma leneen amul ci benn liggéey bu may yëngu ku weer amul ci benn liggéey bu ma yëngu daal lu dul xëy na nag euh, ñàkkul maa ngi ci for dara di ci investir leneen loo xamee ni ci mbéy mi laa ko jëlee comme lan wal ni lu mel ni wàllum yar ganaar lu restaurant yooyu ngi ko yore maa fi benn restaurant ci kaw tali bi eh, boo xamante ni eh, maanaam li tax ma xalaat ko mooy dafa nekk ñetti matières yoo xamee ni dañoo mën a ànd wàllum mbéy salaat yar eh, restaurant bu ci ne dem bàyyi morom ko looloo tax ma xalaat loolu aussi euh, exploité ko te lépp itam nag fii laa ko jëlee yëpp bu gënoon a dox itam damay gën a dooleel bi waaye néewul dama koy bàyyi. maa ngi tudd Talla Niang nekk un jeune agripreneur donc euh, dañu nekk fii nii si localité bi di def mbayum dër l' agriculture contre saison parce que gis nañ ni ñun dans le Saloum pratiquement lépp loo xam ne ni dañ koy consommer comme produit maraîcher wala du genre donc mu ngi jógee au niveau de la moyen Vallée te loolu man je vois que ce n'est pas une raison que ne ñun ñu nekk dans le Saloum am assez de terre am aussi de l'eau suffisant am aussi une main d'œuvre assez valide gisuñu dara lu dul ne war nañoo mën a exploiter ñun tamit vraiment sunu sunu potentialité bu nga xam ne moo fi nekk. maa ngi exploiter 5 hectares mbay il faut que ñu dellu si parce que ñun université lañ nekkoon dem nañ ba suñu master 2 en archéologie département histoire mais gis nañ ne carrément nekkul ne état bi rek si lañ mën a pour ñu mën a am liggéey. donc il faut ñun tamit ñu jéem a def ce qu'on appelle un développement local développement local nag kenn mënu ko def te mënoo def l'agriculture gis nañ ne fii jeunes yi pratiquement ñu bëri amuñu xëy bu ñu xëyee seen ron garab yi la ñuy nekk dinaan ataaya wala lu si gën a lu ñuy def mooy dawal moto Jakarta xam nga problème bi mooy que ne gis nga am liggéey ak am am liggéey ak am xëy dafa xaw a wute parce que mun nga dawal moto Jakarta yaa ngi am xëy mais amoo liggéey parce que nekkul liggéey boo xam ne liggéey bu ñu wax la donc danga dem ba certain moment boo xam ne dootoo ko mën l' nag moom mooy suqali réew moom mooy doxal réew bu ñu ko bàyyee rek yaakaar naa ne suñu koom dina dina dina dina dina reculer. Euh, man maa ngi tudd Aliou Ndaw balaa may am jardin bi euh, vraiment aw woon liggéey bien vrai que man jàng naan dem ba niveau terminal fa bàyyee jàng euh, waaye nag liggéey moom amuloon nawet mooy ñëw nga bay nawet bu nawet boo si génnee. boo amee newet mu dimbale la nga am yeneen yooyu lijjanti pour régler sa dund boo amul nawet mu gën a doon jafe-jafe si yow euh, Proval CV nag fekk ñu si loolu soppi na lu bëri ndax tey si wàllu dépense régler na lépp si wàllu dund bi amuñu jafe-jafe ndax gis nga nawet bu ñu génn rek wane na ko ndax projet bi avantage bu mu am rek mooy nawet bu ñu génn daanaka suñu zone yi yëpp amuñu dugub amuñu mboq parce que neet bi retard la amoon si suñu zone bi mais ñun moom sentiruñ ko alhamdulilah ndax loolu doon na loo xam ne avantage la si ñun te aussi tamit yaa ngi regla soo soxla te kenn du ko xam yaa ngi mun a dépenser wu soo jog jog jotee danga nga a jog dem regle sa problème ñëwaat si njaboot bi da nga mun a jënd semence da nga mun a jënd eh, yeneen eh, dépenses yi nga xam ne di ko mun a def si biir tool bi ñoom ñuy liggéey. Euh, loolu nag wax dëgg yàlla biñ ko commencé ak léegi ak seen jom parce que ñoom yëpp ay suumee leen am jàmbarte kenn ki nag def na trois ans si ay jardin loolu yëpp dadoon dem liggéey ñi fay ko ay cinquante mille loolu sax parfois du ko am vingt cinq mille ñi fay la ko nga ñëw indi ko si famille famille boo xam ne kenn liggéeyu mu jari ji ceeb nga yow nga toogee noonu loolu nag nga koy dund ba lii ñëw ñoom doon génn di liggéey léegi mu ngi liggéey fii léegi magam tamit mu ngi liggéey ndax doon def maçonnerie mu métti doo si mën dara parce que tamit foog ñu dem lijjanti lu ñu indi pour njaboot gi yow mu nga xam ne tamit aussi yàlla may na la xel bee kii nga uti relation partenariale pour am loo régler indi si kër gi loolu yëpp wax dëgg yàlla yàlla ak le projet c'est Proval CV eh, jeex na émergé nañu émergé nañu complètement ndax bo xolé dal fu mu ñu ak fu ñu actuellement mom amna changement na changement total non seulement créé nañu xëy ndax tay même man maa yore gestion bi nek ak ñi même suma ma amul carton bi liggéey mais ñom ñi ñoy ñooy liggéey mais nga gérer leen organiser leen ba vraiment fi ak ay année ci kanam vraiment <laughs> mun mën ngeen ñëw sa ñu le auto oto bee ñoo ko fi garé. bi ñu nag wa Proval CV la. parce que dañ nek centre bo xamne dañuy former ay jeunes. légui bu ñëwé ñu appuyer ñu pour ñu former leen ay jeunes yo xam ne dañu nekkon di jang arrêté seen jàng bëggoon ay activité yo xam dañ koy def muy maraîchage ak agriculture légui bu ñu la waree former ci maraîchage agriculture bi ñu def ko pour 3 mois 3 mois yi daanaka écoulé nañ ko ba paré ni sax dañuy nekk seen phase de sortie promo nañ nekk ñu former leen ci agriculture ak maraîchage théorie en même temps pratique.

Euh, c' est pour cela bu ñëwee Proval CV bu ñu ñom ñu né ñu mun nañu appuyer ci benn mini forage bu ñu appuyer ci mini forage bi nak ñu ngi dem ak mini forage mais jusqu'à présent euh, doxagul parce que amaguñ moto pompe ni solaire pour mëna doxal mini forage bi. maa ngi tudd Oulimata Diagne euh, nekk ingénieur agronome di assistante chef d'antenne Proval CV bu Fatick. ñi ay jeunes la yi nga xam ne centre de formation la def incubation ay jeunes nekk ci région de Fatick ak yenen région jàppale jeunes yi former leen sur les techniques euh, maraîchage ak technique de d'élevage jàppale leen pour ñu am yenn capacité que bu ñu génnee ñu mën a yor seen exploitation fii nag am spéculation yi dañ leen di wan nan la ñuy bayee mhm. euh, dafay maraîchage bayum dër mi lii euh, poivron la fee jaxato la fii am melon bi dañ leen di wan jël exemple ci explication yu ndaw ndawaan wala leen ni ñu koy defee nan lañ koy mbéy yenn problème bu ci am ñu mën leen jàngal bu ci amee nan lañ ko mën a euh, suuxalee problème yooyu maanaam technique de maraîchage daal nañ leen di wan nu muy demee. bu wàcc jotee ku day ñibbi dëkk am. déedéet ñoom fii dañu fii la loger dañuy loger centre bi dafa am hébergement ñom seen bi dañuy organiser wu pour seen lek seen logement pour 3 mois. formation bi trois mois lay durer. li fi ñoré li fi ñoré ñoom dañuy jaay mu dellusiwaat ci ñoom. ci centre bi ci sen fonctionnement ak lépp. fi ci région bu Kaolack nak ñu ngi fi door depuis 2020 bi ñu ñëwee 2020 mille dañoo jàngat li ñuy wax document de projet ñu joxoon ñu ay communes prioritaires mais ñu bolé ci waxtan ak partenaires yi ñu jox ñu yeneen bërëb yoo xam ne aussi yëngu-yëngu am na fi fu mel ni nga xam ne fa lañ jógee ko léegi. bi ñu saytoo ci internet bi gis ne ministre de l' agriculture damoon na fa bi ñu demee ñu waxtaan ak ñoon ñu xamal nañu seen bëgg-bëgg ndox la tey bëgg-bëgg boobu yaakaar naa saafarawu na def nañ fa quatre mini forage euh, connecté ndox mi indi ko ci euh, périmètre bi périmètre bi nekk vingt cinq hectares noonu lañ ko defee ci yeneen juróom-ñaari site fu mel ni tey euh, Mbadaxun fu mel ni Kër Alpha fu mel ni Lanmengue fu mel ni na donc fu mel ni Ndramé Escale ak fu mel ni Paoskoto lolu nek liñu wax petit périmètre maraîcher aussi ñu taxawal lu fukki ferme polycole fukki ferme polycole ci la bok. ñu ngi mois de mai tay 12 mai ngeen gis waaw lu ci waaw deux hectares et demi euh, nañ ko mu koy euh, système d'irrigation micro rain mais micro rain bi dafa doon arrosage bo doo yàqu ndox léegi nag li ñu ko bëgg a defal mooy euh, gas nañ mini forage bi ba pare léegi nañu équiper mini forage bi ak système solaire nga xam ne dana voilà ca dootul euh, jënd euh, gasoil waaw léegi ci pegg bi aussi def na un demi hectare boo xam ne mboq la mboq mi tamit jóg na donc loolu nag lañ bëgg mu law ci réew mi maanaam ñu fexe ba nga xam ne dañuy bay noor bay nawet léegi nag fukki périmètres yi pare na léegi amaat nañ yeneen ñaar fukki périmètres yoo xam ne tey entrepreneurs yi démarré nañ clôture yi daañ ci toftalaat nag ñeen fukki périmètre ak juróom-benn maanaam bu ñu demee ba ca cëppaandaw le ci région bu Kaolack au moins daañ fi am juróom-benn fukk ba juróom-ñaar fukki périmètres yoo xam ne Proval moom moo koy réaliser ànd ci ak partenaires yi bu ma nee partenaires yi nag ñu ngi ci ànd ak Eaux et Forêts ànd ci ak DRDR nga xam ne mooy suñu kilifa ci région bi bu wutoo gouverneur ànd ci ak ANCAR lépp lu jëm ci conseil agricole et rural ANCAR yore ko donc pour wax ne daal projet bi liñ ko naalaloon santoon ko ko ci région bi ñu ngi ciy jëm suñ kémtalaay kattan ca tey gis nañ ne wax dëgg fa yàlla ñu ngi ko seqal muy partenaire service technique yi muy aussi bénéficiaire yi ñu ngi am kontante goo xam ne jéggi na dayoo. am nañu benn fonds boo xam ne mu ngi ci euh, la banque agricole fonds boo xam ne deux milliards et demi la bépp projet boo xam ne xalaat nga ko lépp li nga xam ne ci am milieu rural xalaat nga projet boobu lu gën a baax la mun na nekk ay transformation mun na nekk ay ay ay ay xaw ma yarum jën wala ...etc, etc. fonds boobu dina la permettre tamit de faire sa étude de projet xam vraiment projet bi étude bi c'est vraiment rentable et c'est bancable etc. Nous finançons financer projet mais l'intérêt c'est que taux d'intérêt bi taux bu bas parce que du sous cinq virgule donc loolu tamit benen mécanisme la une intervention tamit une nga réaliser ay infrastructures tamit ngay financer waye aussi baxna nga renforcer capacité ki koy jeriño parce que lepp loy def bu fekkee ne sa xam-xam xeyna desna ci ni ngay gérer sa entreprise euh, coacher la et cetera am luy manquer donc projet bi tamit dina agir ci lolu yoyep nak aujourd'hui boko xolé tay tay tay tay tey fi ñu en matière de ferme polycole en matière de ferme maraîchère réalisé nañu près de 200 fermes ci huit régions sur un objectif de 500 Taïtaï tay les 200 tay tay tay tabit engagé nañu ci ay walum plateforme multifonctionnelle yi nga xamné permettre hein, ci travail de transformation de machin etc vraiment des plateformes multifonctionnelles mais tout au solaire 80 plateformes engagées, nañ ko lancé nañ ko ci walum Taïtamit tamit engagé les travaux ont démarré pour réaliser 50 fermes aquacoles mais vraiment vu sous l'esprit de l'entrepreneuriat pour le volet financement plus de 72 projets c'est déjà étudié etc. pour un financement de 700 millions dañuy avons une micro entreprise rurale. vraiment euh, avec la BMN renforcer ses capacités. capacité déjà fini. Nous avons ñu pour ñu gagner a pour ñu gagner def sen liguey ci euh, deux ans et demi euh, actuellement sur les 80 milliards il y a pratiquement plus de 55 milliards qui ont été engagés. Beaucoup yi suñu xarit yi ñu ngi mel ni nag ñu ngi bëgg a jeexal suñu waxtaan ñu àndoon ak euh, Proval waa Proval wax nañ leen ko liggéey bu am solo la liggéey la ci projet yi président de la République taxawal ngir mbéy mi. ñu gën a yaatal ngir Sénégal gën a yaatu Sénégal gën a jëm ci kanam loolu nag moo doon waxtaan wi ngeen xam ne moom lañ leen jëlee si woon fii ci ngaan ànd ak waa Proval demit ci dëkk yu bari yoo xam ne ñu ngi fay liggéey liggéey bu am solo kon nag suñu xarit yi jàmm ak jàmm ba beneen yoon ci waxtu yi